fadab mon ami. mais Matar coow li bari na trop no ah. non barki Serigne Touba coow bari na bari na neex na. <laughs> mais man ma jaaxal ñi ñi coow ñëpp say nit lañu. Beuz sa xarit la. sa sama frère la. ah. sama frère la. sama frère la sama frère Beuz nit ku baax la. ndeysaan. nit ku baax nit ku yeewu la. comprendre dégguma ni bës nit ku baax la nit ku yarul ndeysaan comprendre mais ku am sa kër bàyyi nga yóbbu daal ku am sa bàyyi nga yóbbu quoi mais concurrent bi am ci diggante ñaar structure bi ci wàllu image plateau yi yooyu noonu ndax nekkul luy yokku làmb loolu mooy tax làmb demaat ca kaw fa mu nekkoon waaw mooy tax làmb demaat fa mu nekkoon. comprendre. ba mhm. pare ba pare affaire yi jarul xam nga jarul jarul xuloo jarul xeex jarul dara comprendre. Mhm. ñoom ñaar ñëpp maanaam làmb moole leen ñor. Mhm. mais ñoom ñaar ñëpp tamit dañ ci am gagne-pain seen gagne daf ci nekk. Mhm. te loo xam ne sa gagne-pain daf ci nekk da ngay reyante pour pour pour pour pour kii ci. mais dafa mel ni dafa mel ni tey jii sànq dégg nañ Modou mbay mu wax. lu mu wax. Modou ñëw na nee na moom moog Beuz jotewuñu dara te saa yu jàkkaarloog Beuz dina ñëw fekk fi taxaw mu jël loxoom nuyu ko Beuz jotewut ak Modou Mbaye promoteur bi moo def erreur ndax contrat bi mu signé ak Beuz da ñëw signé ak ñoom. tax ndax ñoom laaj nañ ko bi combat bi deux jours ak nangam ak nangam mu expliqué ay argument yu bari yoo xam nii mu ngi ci live bi dina génn mais l'essentiel li am solo ba am solo mooy tey jii Modou ah Matar mbay yow Beuz nekk sa frère nga taxaw léegi ne Beuz nit ku baax na tey jii mu am ay coow yoo xam ne ci wàllu làmb te man yaakaar naa ne coow yi defar làmb la tey loolu yow noo ko jàngatee te xam naa ne Sénégal mais noo ko jàngatee. dama jàngat bu positif laa fi am man xam nga man moom affaire bu ñew lu ñew rek dama koy jël positivement. Hmm. dama japp dama dama japp ne rek li ni luy yok lamb lan luy tax li lamb amat benen ciow la parce que parce que. la Rose coins Quench bëre nañ ba paré wa kenn waxul ci coins kenn waxul ci la Rose. wa ñi ngi wax ci digënté ñaari télé. wa mais attends nit ñi buñu ben affaire moy lan. Bantamba. Mon mac Lip TV mais Lip TV mon Bantamba TV. Dégouma? Trou Bantamba. Wow. Mon mac TV. Wow. mais Lip TV mon mac Bantamba TV. Lobo madame, a wax Bantamba TV affaire bu la. Hmm. ndax TV Wow. mac Bantamba TV. Wow. abonné mille fois. waaw te ñom lepp lu ñuy def. dañuy xol ci ki leen ëpp doole ñu sukkandiku ci ngir mëna def dara. wa mais. yang may dégg. ma lay dégg Matar. mais affaire bi lool la. amul leneen. ba pare faram affaire bi liggéey la ah. gaay nañ liggéey rek. yow da nga bëgg ñaari structure yi ku ci nekk créer ay plateau yu graw graw graw yo xamni doxal lamb day gën a doxal làmb affaire bi foofu la toll. <laughs> boo sa reetaan. affaire bi foofu la toll. sama xarit la xam nga booy sama xarit la sama copain la. <laughs> yow Fadam mën naa ne bu amee man pay per bu amee bës dafa may yónnee kon kon xam pour te dire bës sama xarit. ndeysaan. du xaar ma laaj ko de daf may message ne ma yow ci nga bokk am seetaanal. ndeysaan pay bi muy doog a ñëw ñun ñoo ko accompagner hmm? maanaam di di ba la daguerre la daguerre booy ñaar waaw production pay per view bi man ñoo ko def jox buzz mu diffusé sama mag bi li mu doon expliqué dëgg la buzz suñu frère la eh, mais alaaji Fadam asalaamualeykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Eh, alaaji Matar eh, Matar Mbaye salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. waaw man maa leen di ziar na ngeen def. ziar bu wër a wër. macha allah Abdourahmane maa ngi lay ziar. mais mais na ngeen def sama gars yi. rek maa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax non dama gis benn image léegi bu rafet. ko man bàyyi naa lamb quoi man moom bàyyi naa gars yi ku xatal nañ ma ba ma dow. gars yi gars yi am nañu garaaw quoi gars yi dañu tàng yor ay missile sol sol man moom bàyyi naa ne léegi amateur laa ma ñëw nag écurie Fass tombeek nag Serigne Ndiaye 2 ak Forza di juboo di naanalante ndox Serigne Ndiaye Forza gi nii Serigne Ndiaye 2 gi nele te ku ne déggoon na seen coow ah, léegi nag Fadam def naa demande ba sonn def naa demande ba sonn pour nga teel ma dugal mais malheureusement raté nga image bu rafet bu nga xamante ne Tafa Gueye Abbas Ndoye ak xalifa euh, Diak Socé waa Fass jubóole nañu Serigne Ndiaye 2 ak Forza ba ñu ànd contact ñoom ñaar kottante te ndox. ci image bu rafet te ku ne xamoon na seen coow ndax làmb dara ump ci dara réeru ci quoi. donc image bu rafet boobu laa gis man moom bàyyi naa làmb moom gars yi moom. alaaji buzz amateur alaaji buzz amateur. waaw. Euh, tey jii lool xew ca Fass. waaw loolu rafet na waaw dëgg la. kon waa Fass dañoo xam ne combat bi ñu jëm esprit de partenaire moo tax ñu gañe ko. Euh. mais mais bës ah, yaa ngi may dégg. non instant yii déggu ma la parce que dañ may menacé si ak ay gants. maa lay delloo si yaa maa yaa ngi si jàmm. nag activité yi. li ah. ma gis léegi ngay saxal ndox. sa doom la Forza di sa père nga ne sa doom la. mais mu ngi takk ñaari nit dafa mel ni yow lay de. <laughs> macha allah macha allah. am na solo. eh mais eh, Matar nag ma. Matar yow nga ne mun sa mënam yéey. yow yaa wax loolu wala kan ma wax loolu. kañ laa wax loolu. non ma dégg léegi ngay ku mun sa morom yéey. mais nañ yéeyante loolu dafa garaan. ban non problème mooy doole yamul tamit boo yéeyantee da nga yéeyanteel ki nga tollal doole. ah. man fu mu toll nii bàyyi naa ñaan leen yàlla ma continuer ci sama bàyyi bi parce que su ngeen ma merlooy ba ma dellu si waatee su may yéey problème bi mooy bëtu car bëñu carnivore laa yor. ah gisoo bàyyi bàyyi woo fenn bàyyi woo fenn ngeen ma ma bàyyi dara bàyyi woo. ah ma ma ma ma ma non man bàyyi naa man bàyyi naa. non booy napp ngeen bàyyi. yow munoo bàyyi làmb non non booy. déglu napp ngeen ma affaire yi bëri xam nga jékki-jékki naa yaram bi tàng ma bàyyi. Eh, mais lu gën lu gën non non dama lay expliquer dama lay expliquer. non dama lay expliquer. dama lay dégg naa dégg naa Pape Modou xaw ma kan kële Modou Mbaye. waaw ah. dégg naa dafa dugg sànq di nappe. gars yi ma ko wax. non Modou Mbaye nee na eh maa lay wax li mu wax bës. waaw nee na. ñaari structure yi dañoo war a def balaa def dara ci wàllu liggéey bi. waaw créer ay plateau ku gën a tàngale ku gën a neexle. waaw waaw. te yooyu ñu ngi koy xaar. mais mais non man xam nga man li ma jaaxal man Moodu Mbaye sama copain la woon. waaw Pape Moodu sama copain la Matar Mbaye sama copain la Matar Mbaye moom mooy superviseur bu làmb amee. Matar Mbaye moy superviser ndax code yaangi jaar yoon wala code yi bu problème son mom momay message mais Matar depuis depuis deux semaines bindatuma message non bu je suis Fadam defal dank lajal Fadam kagn live. man live rek gëj bu non Matar Mbaye bu téléphone man mom man da ngay déglu da ngay am na ah, leen lu am na kuy ñëw de buzz. waaw da ngay déglu boo mënee déglu nga déglu boo mënul déglu ñu kii man Matar Mbaye bu coow amoon daf may message. bu ma message buzz maa ngi maa ngi nii dem. buzz maa ngi nii di dem damay dem. bilaay bilaay walaay bu kër gi ñëpp bu kër gi ñëpp raa bu kër gi ñëpp raawee maa leen mën kër gi bu ñëpp raawee maa mën maa kër gi bu ñëpp raawee kër gi. booy zona booy zona nga moo tax ma nekk esprit. booy zona nga ñun Grand Dakar. waaw mais Grand Dakar. yow booy zona nga Grand Dakar lañ dëkk na nga réglé yow xam nga ni dofoo da ngay dof dof. waaw wax leen wax leen ma noppi. Eh, wax leen. Eh, wax leen booy da ngaa gaaw a jooy trop looy jooy. non non non xam nga xam nga lu ëpp tuuru bu affaire yi méttee affaire yi xam nga xeex bi tar métti ñu lay kot nga jël gauche droite ñu kot la bu yàggee da ngay jooy nit laa rek du ma xut bu samaan du ma yenent da ngay jooy bu méttee da ngay jooy c'est ça hein? c'est la vie hein il faut pleurer de temps en temps pour avoir yi dégager wu. mais au boss nga waroo joy. yow waroo jooy yow boss. nga. waaw non non mais non amul nit ku dul jooy nit ñep day joy ay ponkal mais yow joy da nga war a nëbb. yow waroo ci non mukk ci non moo am ay ponkal yu mag jiki jiki joy comme xale. Amara Traoré ngi ni Coupe d'Afrique bi buñu ñu gagné dafa jiki jiki muñ ba ci yag rek joy hein? xana duma nit xana duma nit. mais buzz mais yow yow dafa mel ni eh, buzz buzz dafa mel ni gars yi dañoo bëgg a yee gaynde guy dañ ko bëgg a yee non ah, loolu arrangé wu loolu moom dama leen koy wax entre nous man bàyyi naa man bàyyi naa personnellement mun naa accompagner jox leen ay conseil waaw lu tax ngay bàyyi lan moo tax may bàyyi c'est pour plusieurs raisons xam nga est-ce que xam nga ni man loolu mënuguma ci wax damay def conférence de presse bu ko defee nga ñëw di ma poser ay questions ma expliquer la lan moo tax ma bàyyi làmb avant avant de presse yow waaw yow da ngaa yow da ci làmb waaw lu bari bëri waaw waaw léegi yow boo jékki-jékkee nekk si làmb ba mu yàgg concurrence bi metti concurrence bi metti yow yaa ne concurrence bi moo metti moo tax nga daw kon yow da ngaa daw waaw loolu yow laa bëgg nga kontaan rek moo tax ma wax la loolu non non mais non man bëgguma nga baay waaw non mais yow xamoo la moo tax ma bàyyi non lu tax nga bàyyi non lu tax ma bàyyi de choses yoo xamante ne man xam naa ko yoo xamante ne c'est en interne loo xamante ne man xam naa ne am na yeneen affaire gën a neex yoo xamante war naa ko mun def mais c'est pas le plus important ama le plus important c'est quoi man li ma jaaxal mooy man Matar sama copain yow dara waru mun tax ba yow doo bind message demee bind message Modou Mbaye itam boo ma rombee man keroog li ma def ree fadam Modou Mbaye dama wax sama intervention ma romb ko ñu tase ci loge bi quoi ma romb gis mais loo doon fas kanam man li ngay fas kanam laa xamul. mais bu dee Pape Moodu Pape Moodu moom. Pape Moodu moom day fas kanam waaw booy da ngay booy da ngay booy booy booy wala ma bàyyi la wax bàyyi ñi nga wax booy ñi nga wax booy ñëpp eh, eh, ñoo mag. non mais samay booy lañ booy mooy copain booy mooy copain. waaw dafa naan ma wax la sa intervention boobu nga def waroo ko woon def. Mm-hmm. waroo woon def intervention boobu. mais xanaa duma nit. non nit nga. waaw léegi du mais yow yo yo yo wa yo ñaata yon la taxaw estat man. ñaata nga taxaw estat di coow ak nit. sama père ngi ni ñaata yon wa wuy ma ñaata yon wuy ma ñaata yon la taxaw estat wa di coow ak nit. juk di am luma bëgg wax yow nga ni ma eh dede do am. waaw. wa kon lu tax ngay def lo wa keroog téwuma woo ma boo ma gisoon di nga ma téye may togi ci xalaat yo mais yow ñëwoon pour ñu gis la. ah dama ñëwoon pour def lan. yow kay yow kay leneen mo lay ñëw lan moo muy indi. loolu moo lay indi loolu nga ñëwoon des. da ngaa ñëw naan ñëw dama ñëw pour jooy pour jaxase leen ak sénégalais yi. pour jooy yërëm tudd. waaw waaw gain te mënu ma leen jaxase ak sénégalais yi. mais c'est pas le plus important le plus important mooy maa leen ñaanal ci làmb. vraiment. waaw yow ñun bëgguñu loolu soxlawuñ loolu. waaw waaw li ngeen bëgg xeex. waaw bras de fer ah waaw. non ma bàyyi la nag kii demul fenn kii demul fenn yow doo ma kii daa dem fenn waa baax na nekkal si jàmm afta ñu déggoo. mais man. Euh, alaaji Fadam. waa bës. xam nga yi samay copains lañu mais dama leen benn affaire nañ ma bàyyi ma bàyyi. ma bàyyi de bu ma toogee bu ma toogee bu ma toogee damay ragal jooy dina bëri de. non non buzz li problème oh. buzz li ah, toogee jooy dina bëri de. non buzz yow intérêt làmb nga yow man xam naa ni man intere làmb laa man gis nga dama ne xam naa ni niveau bu may géem man niveau bu may play li ma war a def defaguma trente pour cent ci làmb fadam fadam làmb bu ma taxawee pour joob ko li ma mun a def dafa bari xam nga fadam man li may metti xam nga gars ñu comprendre man li may metti c'est même pas booyi nii booyi tuuti leen ci metti def ma lu ma metti samay gaañ lañ dama leen di tutoyer nii parce que samay gaañ lañ mais tuuti nañ ci def ma lu ma metti Modou Mbaye mënu maa yëngal Matar Mbaye mënu maa yëngal Pape Modou mënu maa yëngal ñooñu samay booy lañu samay fils lañu barki alxuraan ma li may métti yenn saa yéen des fois du ngeen ko xam. li may métti day jóge ci ay nit yoo xamante ne. waaw booy da ngay mën a noppi. ma wax wala nga wax dañuy waxtaan waaw dañuy waxtaan. waaw non non non non non booy mënoo leen toog non non non. xam nga gars yi man namm si tool yi man namm. non faram caaw faram caaw. non non day noppi day noppi day noppi ma wax loolu. non man neexaluma kenn fu mu toll bu dee dëgg rek mais Matar Mbaye da koy may taay bës moo yor coow li. noppi daal. non day mën a noppi bu mënulee noppi man ma génn. dëgg la. dëgg yàlla loolu moo ci am. léegi daaw nga mer daaw baax na non waaw non si man fu mu toll lu ma neex laay def fu kenn moom ma. waaw moom sam bopp. léegi dama lay expliquer benn fan gis nga Fadam. Hmm. gis nga des fois nit nit la. day hmm. génn di def yenn sotti yoo xamante ne mooy loolu. day am mais hmm. sotti bi ba def. y a beaucoup de choses qui se sont passées c'est vrai mais man lii choses, mais c'est pas ces boy là les choses des fois sax day nek ay nit yu ma jege yo xam dama fu may jaar ak ñom. après bo gisee ni lii mu ngi lay soppi mu ngi lay changé te yow dégg naa Lamine Sank mo wax wax bu am solo mu ne len Lamine dafa ne bu fekkee affaire bi affaire bandi la ko ñun duñ ci am ndam parce que duñu ay bandi man bu fekkee affaire bi dafa dem ba man dafa may soppi man sama jikko da bu yóbbu ci benen gam ma bayiko gaay dem sama yoon xam nga fu may waxee. Mm-hmm. mais dama len bëgg wax mais bu ñu nekk di. utiliser ay discours jaru ko ñu ñëpp ay frère lañ Matar man dafa am lu may gën a déranger parce que des fois man bëgguma am ak problème ak nit dëgg la business business la bëgguma am ak problème ak nit mënu may ne ñu sekki jàmm di kaf di fooree Pape Modou mais après bi romantee duñu nuyoonte yooyu yooyu rafetul te ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ay gaañ lañu après xam nga mun nañ nekkaat ci yeneen business sax après mais tey am loo xamante ne tey sénégalais yi dañ ko war a comprendre liggéey dëgg la am na concurrence mais am na affaire yoo xamante ne war na mun a ñàkk quoi am na affaire yoo xamante ne war na mun a ñàkk ci liggéey bi am na yenn affaire yoo xamante ne ay tooñ la yooyu soxlawul mu ciy ñëw soxlawu ko am na affaire yoo mun na ñàkk ci mun na bañ am ci liggéey bi te itam am na bañ ay tukkuwante itam jaru ko ay affaire bi nañ liggéey nañ rayante nañ concurrence parce que gis nga nit dina baax nga soxorloo ko après affaire yëpp affaire yu bëri yu bëri soppeeku man tey su ma soxoroon làmb ji su ma soxoroon làmb ji benn télé mun naa bañ am image mm-hmm. su ma soxoroon man ci làmb su ma soxoroon man benn télé mun naa bañ image ñoom ñu ne ay contrat ñoom yoo xamante ni signé nañ ko man maay wax ak promoteur bi pour promoteur bi signé ak ñoom du caaxaan li ma lay wax ni mhm. te tey xam naa ni man tey man li ma yor kenn mënu ko dindi ci làmb fu mu toll nii muy pay per view damay damay liggéey promoteur ba pare yëkkati quarante millions jox ko yëkkati cinquante millions jox ko yëkkati trente million jox ko amul kenn ko koy jox. donc tey man xam naa ni tey am na promoteur yu bëri su ma leen waxee ni man rek ngay liggéeyal doo liggéey ak télé bi ak doo liggéey télé bële mun naa metti ci ñoom. mais mais booy nag loolu. donc bu ñu ay soxlawul ay discours. loolu ay ku mun sa ay mun yëy ku sa morom yëy boobu noonu bu ñu yëyantee mun mun ngeen mokk. non non waxul waxul waxul waxul waxul. bàyyi leen waxu malak yooyu non waxu malak yooyu mataar ngeen di bàyyi. waxu malak yooyu da ngeen koy bàyyi. non waxu malak yooyu da nga koy bàyyi wala mun nga ko bàyyi wala munoo ko bàyyi. non da ngaa non parce que dama ne woon bàyyi mais su ma ñëwaatee. day métti non non non bës man man bës. promoteur yi promoteur yi mënoo signé ak ñoom ne yow kese la ñuy liggéeyal duñ liggéey ak télé yi mais loolu arrangé wul am na loo xam ne ci làmb yow mënoo ko. waaw loolu loolu ci yow ci sa xam-xam. non bëri na xam nga yow affaire bi da laa raw. waaw dañuy wax daal affaire bi avant yaa téye bës bi mais léegi nga. mais dégg da laa raw. dégg loolu mais bu dee mais xam nga. dégg boo xam ne faram li ma def rek xam nga faram li ma def rek waaw bàyyi ma waaw bàyyi ma daanil bi. non ma yeggale ba pare dama ne bàyyi ma daanil bi. am na loo xam ne am na loo xam ne bës léegi léegi Matar Mbaye Fadam daf may mën a não wala ma não non non li may wax dégg la. mais Matar Matar dañuy benn affaire bi yow ku mun yow ku mun yow ku mun sa morom yow ku mun sa morom yéey boobu. waaw ku mun sa morom ku mun sa morom yéey boobu noonu ngeen di wax bàyyi lañ ko. parce que yow yow bu ñu yéyantee keroog yaa ngi ma jiitoo live une heure de temps bu dee dañ ko teg ci cadre concurrence une heure de temps nga ma jiitoo live. nga bëri ma ay abonné ma ñëw fekk sa la fa moment combat ma am quarante mille personnes ñu may não yow nga am deux mille personnes ba pare nga ni ku mun sa yow nga mbokk loolu Matar Mbaye du ma sa morom. waaw oh, dëgg du ma ah, sa moromu mag Pape Moodu. ñaar abonné du ma sa moromu mag Moodu. ñaar abonné nga am maa mun maa. cent et quelques mille abonné nga am maam cent quarante et quelques. bu bëri woon bu ñu ñëwoon écurie Fass fii ñu géew. bu ñu ñëwoon bu ñu ñëwoon écurie Fass fii nii bu ñu ñëwoon écurie Fass fii ñu géewal ma ma duma la. maa la dàq bëri maa la ëpp salañ salañ man ñëpp xam na ni barke maam Cerno Birahim bu ñu bëree bu ñu bëree bu ñu bëree man ak yow bu defee cinq bu defee cinq minutes yaa gañe sama diggante yàlla bu ñu géewalee fii man ak yow 30 secondes bu defee cinq minutes yaa gañe wuy ma wax léegi man daa am benn question ma bëgg a laaj bës. bu dee yow rek bu dee yow rek bëriwu ma da ngay taxaw Pape Modou taxaw Matar Mbaye taxaw yow ak Pape Modou ak. ñooñu maa ngi te yow yow ñooñu